di leeral lu bëree bëri di am déclaration boo xam ne moom la président ma Madické Niang wax euh, wax ne président Macky sàll war na Serigne tubaa loolu nag jàpp naa ne euh, wax la joo xam ne nii jëmati wax la ju yàqu depuis ci jamonoy sëriñ Saliou ba léegi si ñëpp xam na ne président Macky Sall mooy ki mujj ci Serigne Saliou ñëpp xam na ne bi mu nekkee ministre de hydraulique li mu fi def ci dëkk bi kon tey bi mu nekkee président. Euh, bërki démb lañ inauguré autorite Ila tubaa mu wax ne euh, affaire commerciale la waaye commerciale la boo xam ne moom ca lay jaar keneen ca lay jaar di ñëw Touba ngir di siyaare si wala muy ñëw tubaa kooku jàpp naa ne euh, buñ sañoon réew mépp nekk ay commercial comme Touba ni nekk ay commercial buñ sañoon sañoon it Afrique gépp nekk ay commercial comme ni Touba nekk ay commercial kon loolu waxtu yàq la waaye dama jàpp ne bu fekkee dafa am ku war Serigne tubaa moom moo war Serigne tubaa ndax kenn ku nekk xam ne ne Serigne Saliou ñëpp xam nañ milliards ya nga xam ne Ablaye Wade jëloon na ko ci moom ca ci loxo Madické Niang ci la jaaroon milliards yooyu ba ci mujjug Serigne Saliou nan ko war a delloo delloo ñu ko ci ñun xam nañ nam demee lépp ñëpp xam ne ne ñu ci dëkk bii tamati ah, li ma fiy wax waxtu wu ne ñeenti candidat ñoo fi nekk candidat bi nga xam ne mi ngi tabax kër diine yi muy président Macky Sall ak di dundal li fi maam yi bàyyi woon ak candidat yi nga xam ne ay pétrolier lan nga xam ne ay nit ñu yor pétrole ñoo leen financé ak candidat yi nga xam ne euh, waa sala waa fala ki salaax lan ñi nga xam ne tamati euh, candidat yeneen yi nga xam ne tamati ñoom ñëpp borom ñaari tur yi lan ñu nag xam nan dafa am loo xam ne bëgguñu caa egg ndax mm, esthétique bi ñu yore bëgguñu ca egg pour tudd ko waaye ñëpp xam nañ ne euh, góor moom bu demee bay soppi aw yaramam Euh, wàññiku moom ci jëmmi boppam euh, euh, di am ay ci dëkk bi ñoo xam ne nii bari na lu may wax loo xam ne nii am na ay sëti sëñ tubaa yoo xam ne jëloon na leen fi yor leen ñëpp xam nañ fa mujjee ak ñoom kooku bu dee gëm na sëriñ tubaa kooku du du ci dëgg ca moom kon ma dikki bu bëggee politique na politique ñëpp xam na ne Serigne Mountakha waxloo na Serigne Bass Abdou Khadir li président réalisé ci dëkk bi ñëpp xam na ne président it li mu fi def ci assainissement kenn xamul nu mu toll ci assainissement boobu yaakaar naa ne màkk sax boo fa demee bu buy soog taw danga nga gis mu taa nga dem Amérique bu taw da nga gis muy taa moom war na adduna bi xam na loolu kon loolu mu wax wax ju yàqu la et nan politique mais nan xool li nga xam ne ay réalité la ak i dëgg la ñu koy wax waaye mag bu demee ba nga xam ne xool na la muy wax dara du ci dëgg ca bu war dee am moom war na sëriñ tubaa waaye waxuma la war na sëriñ tubaa ndax sëñ Saaliw nekk na fi mu war ko war na njabootu sëñ tubaa goo xam ne ay ay jigéen la ñu dénkoon leen ko beneen ba ca tege tamati mu doon lu leer naññ ñëpp xam na ne moom ci jëmmi boppam war na Ablaye Wade ndax jàpp naa ne ci réew mi Macky Sall ba méttee mu am ay problème boobu nguur gi mi ngi fi nekk Ablaye Wade nekk pouvoir bi nekku ci boobu la bàyyi jël lépp loo xam ne nii parti bi joxoon na ko delloo ko kenn ku ci ne ba ci ba ci keneen ki nga xam ne moom laay xoolal bi si sax mu ba mbir yi tàngi wala yu mel noonu wala ak keneen ak keneen waaye moom moom kenn ku ci ne. Macky Sall euh, ba ci tàmbalee ci Macky Sall ba ci ñeneen ñi ci des nga xam ne nekkoon ci Abdoulaye Wade ba ci man mi kenn ku ñu xam na ne am na foo jaar am na yu metti yu la teg ci teewut yow ci sa jëmbi boppam teewut nga nga jàppoon ca ba mi minute ah waaye moom bi mu demee ba mu metti moo doon homme de confiance Ablaye Wade ñëpp xam na ne Ablaye Wade këram la doon nekk ñëpp xam na ne moo doon ab Ablaye Wade ba amamu ne ñëw pouvoir ñëpp xam na ne Karim Wade moom moo doon nijaayam teg ci kon tey kër ki gi nga xam ne fa la Ablaye Wade daan dal teg fay bagage bu ñëpp doon bàyyi. wala ñëpp doon ba jàkkaarlu ko Ablaye Wade moom ci boppam muy man di makki di keneen na fa afam Ablaye Wade jaar ak moom bu fekkoon ne tey jii nekkoon nañ Ablaye Wade ba léegi si bu boobaa deew ñu fay jëlee waaye du fa jëg ba ilaa yu muy diini kon nag moom amul lu war a wax war na Ablaye Wade moom ba amatul lu war a wax na li diggante mag président Wade loolu mooy li leer beneen ko ci bi sa war na sëñ tubaa ndax day politique dëkk bi Saint-Louis wala doon milito ñëw fii teg ay ay ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne lam ci jublu mooy yàq ak wàññiku ndar soxlootuñu ko kon rawatina Touba. ñun suñu yéene mooy président Macky Sall gagné lépp loo xam ne ni ay moye la wala lépp loo xam ne mi ngi dugg ci dëkk bi mu jëm ci comité électoral ñu xool naka lañ war a def pour xool yi ñaari groupe yooyu sélectionné leen ñu xool naka lañ war a mën a def pour ànd liggéey parce que dëkk boo dem bu ne. dana am ñaari leader ba ñetti leader ba ñeenti leader ñoo xam ne ci dëkk ba lan lan ànd kenn ku nekk ak sa côté bopp du tee ngay doxal du tee tamit ngeen boole fu ngeen di àdd di di root di sot liñ du nangu daal ñaari nit ak ñetti nit continuer nekk ci dëkk bii di doxal ca nu fi nekkee ba léegi si dañ doon perte ñuy continuer di perte lu ñëw ñu yemale ko ci seen i biir ah ba pare ñu continuer di perte ñu doon ay gone yu ndaw ay mag di topp ci seen gannaaw loolu moom dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy lànk ndax ay yi jëmm yu toll ni mun du nekk ci parti di liggéey ah, ñi fi ne woon jiite ko bu buñ fi nekkoon ba tey ca mel nan waroon a mel kon daneen ànd ak moom nangu ñu jiituñu waaye ñoo ñu nekkutuñu fi xanaa du fi bàyyi ay gone yooyu ñu continuer di ñu conduire ak ñu continuer di ñu jiite loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ah parce que xam na la mooy mooy mooy politique kon suñ gëm-gëm mooy lan nan xool ñi mën a ànd ñu ànd ñi mënta ànd ñu ànd ñi mën a ànd ñaan li am solo mooy li ñuy root lépp ci euh, fi koy wersi mooy ci président Macky Sall mu am ndam kon loolu moom lu may bàyyiloo xel la di wax ne waa dëkk bi it réunir ci benn cause mooy lan pour fas yéene élire président Macky Sall fas yéene dëkk bi ñu naqoon président dañoo naqoon ba nuur ñu fas yéene neqiku ci su ak suñu bopp waaye bu nekk koy ba su loxo yi di feeñ comme que toll nañ foo xam ne tey lii fi ajaar Ila Touba ji ak ak réalisation yi mu fi jot a def ak ni responsable engagé comme que yàlla dogal na nekkiku nañ ci ndox mi ba suñu loxo di feeñ ñu ngi wax nag président nañu tàllal loxo pour pour jàppale ñu nag ñu mën a fas yéene génn ci ndox mi nag kooku moom euh, dernier kàddu lay doon.